suñu réunion tey bi nekk na occasion pour ñun ministre ñu yeesalaat suñu taxawaay pour ak suñu euh, ambition pour ñu fexe ñun ñëpp ñu bàyyi lépp loo xamante ne moom mooy subvention yii di indil euh, bateau yi ñuy def pêche boo xamante ne euh, teguwul ci yoon wala pêche boo xamante ne duñ ko déclaré wala pêche boo xamante ne amul tëralin ci yoon waaye tamit subvention yi nga xamante ne moom mooy tax bato yi di am capacité gu bari ba nga xamante ne lépp loo xamante ne lu baax la ci géej gi ñu koy nangoo ñu koy mën a jël ci benn waxtu di wax ni madame la présidente que bu ñu xoolee euh, obligation yi am au niveau international am na ay effort yu bari yoo xamante ne ñu ngi koy def pour ñu jéem a euh, promouvoir benn pêche bu responsable te durable waaye loolu terewul ba léegi ñuy gis ni am na pêche illicite ak pêche boo xamante ne du ñu may pour ñu géej bi mu mën a noppalu ba mën a am stock yi ñu mën a renouveler wu donc tey jii ñu ngi seetlu ni stock yi wàññeeku na bu baax a baax a baax donc ni ñuy taxawalee wàllum pêche war nañ ko xoolaat ndax am na ay limites te gëm nañ ni organisation mondial du commerce mi nga xamante ne moom mooy tëral. Euh, règle yi yor commerce bi war na cee am taxawaay bu baree bare Sénégal def na ci ay contribution yu jëm ci nan la ñu war a waxtaanee ba nga xamante ne subvention dinañ ko wàññi mu nekk euh, ay subvention yoo xamante ne du du yàqal euh, population yi nga xamante ne ñu ngi dund ci pêche bi waaye nag bu ñu bëggee am ay résultats après Euh, ñaari fukki at ci négociation ndax nag yàgg nañu négocier accord bi ba léegi amaguñ ci ay résultats il faut ñu continuer ci dialogue bi te Sénégal mu ngi ciy ubbeeku waaye nag luñ ciy ubbeeku yëpp am na ñaari conditions yoo xamante ne euh, bëgg nañu vraiment ñu respecté ko moom mooy fexe ba pêche artisanale bi vraiment mu bañ a bokk ci li nga xamante ni dañ koy tere ci subvention yi waaye tamit euh, beneen bi mooy ñu fexe ba ñu xam ni. pêche gérer pêche mu ngi nekk prérogative état du Sénégal ak état ak droit national donc euh, nañuy sorale loolu ci accord bi donc di wax ni contenu bi ñu gis ci proposition yi ñu jot a def war nañ ko xoolaat ñu xam ni dafa war a nekk ci ñu ñu intégré ci loolu ñu wax léegi donc madame la la présidente sama délégation mu ngi lay euh, remercier di wax ni accord final bi na fexe ba dugal suñu ñaari condition yooyu ñun ñoo ngi wax ni pour ñu jeexalee suñu kàddu ñu ngi bëgg a wax ni ñu ngi réaffirmer engagement ak ubbeeku Sénégal pour ñu liggéey ñun ñëpp loxo ak loxo ba ñu fexe am accord sur les subventions à la pêche boo xamante ne dina euh, équilibré ba pare dina respecter droits internationaux ak nationaux bu géej bi waaye tamit dina respecter souveraineté état membre yi maa ngi leen di gërëm di leen di sant. juste par rapport à la rencontre de tout à l'heure, qui se pointe, est-ce que vous pouvez rassurer les Sénégalais que le marché non seulement sera bien approvisionné, mais qu'il n'y aura pas encore de euh, oui, bien sûr, euh, la, le marché est très bien approvisionné. Euh, nous savons que pour euh, la fête de Tabaski, c'est le mouton, l'oignon, la pomme de terre principalement. Et donc, euh, pour l'oignon et la pomme de terre, nous savons qu'il y a une très bonne disponibilité des produits sur le, le marché sénégalais. Il y a même une suroffre, donc il n'y a pas de risque de hausse des prix. Voilà. Et pour euh, euh, le mouton aussi, nous avons suivi euh, le travail du ministère de l'élevage et aussi les déclarations du ministre de l'élevage. Je pense que les Sénégalais peuvent être rassurés quant à la disponibilité de, des moutons, mais aussi à la disponibilité des denrées de première nécessité et qu'il n'y aura pas bala ñu waaw dama bëgg a dalalu xelu Sénégalais yi foofu rek ndax xam nañ ni tabaski moom euh, boo ko waxee ñetti produit ñoom ñoo ci gën a intéressé Sénégalais yi mu mel ni euh, mouton ak euh, oignon ay pomme de terre yeneen produit mën na ñëw mais ñetti yooyu daal moom mooy gën a occupé esprit sénégalais yi donc di wax ni gis nañ ñun ñëpp ni. ci marché bi nag am nañ disponibilité bu am bu bare ci oignon ak pomme de terre donc loolu moom euh, prix mënu foo euh, yokk bu ñu xoolee tamit euh, ci mouton bi gis nañ bu baax ni marché bi ñu ngi ko approvisionné ñu ngi suivre liggéey bu am solo bi nga xamante ni ministère de l' élevage mu ngi koy def donc di rassurer sénégalais yi nii non seulement dinañ am xar ci prix yu gën a baax waaye tamit incha allah du ñu am benn jafe-jafe ci approvisionnement oignon ak i pomme de terre te prix yi dina stable.